seen bind bi ñuy tuddee rattilil quraana ma'i ci xaaj bu njëkk bi ci niveau ci njàngum liifantu muy ijji ni ñuy mënee ijji ba mën a jàng alquran njàngin mu wér mu mucc ayib ñi ngi ci deuxième leçon bi xuruful hijaa i murakkabatan waaye di ci juróom-benneelu bind bi ci xaaj yi ñu koy xaaj xaraf yi nag ngeen gis ñu warale ko benn rëdd bu verte nga gis niñ ko coloré ngir bëgg nga xàmmee ko niñ ko waxe woon ci bind bi ko jiitu sànq rek boo xoolee dañoo bëgg jiim xaa xoo taa haa daal zaal roo zaay nga xàmmee ko bu baax suñ ko dugalee ci biiri baat boole kook yeneeni araf yu dul moom moo xam mu nekk ci njëlbeen gi wala ci digg bi wala ci mujj bi ci mujj gi nga mën koo xàmmee kon boo xoolee rek gis nga taa fi bi bi biñ def ñaari tomb yi nga gisaat beneen bu nurook moom amut ay tomb boo xoolee daanaka niñ ko bindee benn la leen wuute la mooy tomb yi bi bi mu amut tomb haa la bi mu amee tomb taa la am na beneen beneen taa boo xam ni du rond ñaari tomb lay am comme ni nga ko jànge woon alif baa taa taa booba melul nii kon yooyu nga bàyyi ci xel li ñu tuddee taa maftuuxa ak taa marbuuta nga xool haa bi ak beneen haa bi ci topp ni mu mel gis nga ko nga xool daal zaal leen wuutale mooy tomb waaye ni ñu koy bindee benn la nga xool roo zaay ni ñu koy bindee benn la leen wuutale mooy tomb bi buñ ko dugalee nag ci biir baat nga mën leen a xàmmee waaw kon aywa kon may ma nopp nga mbokki daara ji yéen donga yi góor yi ak donga yi jigéen yi ngeen xool bu baax te déglu bu baax kon araf yi nga gis saa boo gisee rek ñu wërale ko ab ab ab rëdd benn cercle araf yooyu lañ bëgg buñ ko dugalee buñ ko bu composé ak yeneeni araf moo xam ñaari araf la walla benn la wala ñett la nga mën koo xàmmee del xool bu baax couleur bi nga di ko xàmmee jiim xaa xoo xaasaa xoobaa ta tahata ya jimba bakhota sodhaba miim xaa daal xaa alif jiim taa xoo miim laam taa haa aywa taa haa buñ ko dugalee ci biir baat yi nga moom nga xàmmee ko bu baax baataa yaahaa taahaa anta kon gis nga foofu rek taa taa bi mu bëgg nga xàmmee ko bi mu nee baa taa taa boobu mook taa bee ñoo bokk bi mu nee la nuun taa taa boobu gis nga ko niñ ko bindee mook taa bale ñoo bokk te gis nga bind nii ni ñu wuute bi mu nee la yaa haa haa bi ak haa bale ñu bennal ñoo bokk bi mu nee la taahaa haa boobu ak haa bale itam ñoo bokk kon yooyu nga bàyyi ci xel yi ci desit noon la mel bindi nii ñooy wuute waaye niñ koy jàng benn la aywa haa yaa haa baa baa haa alif bahamim bahamim laam haaba foofu gis nga haayi ni ñu wuutee ni leen di binde te ñoo bokk gis nga ñaari baat yi bahamim bahamim foofu lim bëgg ñaari miim miim yi ñaari miim yu dend a ngi noonu gis nga niñ ko bindee bokkul waaye yépp miim la kon noonu rek la yi ci desit noonu la dañoo bëgg haa ci mbindin yu wuute yépp nga xam ni haa la aywa daal daal jiim daal خذال را زاي جيم را خازاي عين زاي ميم را yaaroo taasaay mu ngoog kon nga bàyyi ci xel euh, xàmmee ko bu baax ay aywa kon nag àndandoo leen yéen ñépp donga yu góor yi donga yu jigéen waxleen ci kaw ma dégg aywa jiim xaa kho hasa khoba jim ta ta ha ta ya jim ba ba kho ta صاد ha ba mhm. mim ha mim dal ألف جيم تاء خاء ميم حاء ميم لام تاء هاء باء تاء يا هاء تاء هاء نون تاء هاء يا هاء باء باء هاء ألف باها ميم باها ميم لام ها باء دال ذال جيم دال خاء ذال راء زاي جيم راء خاء زاي عين زاي ميم راء يا را تا زاي ما شاء الله ما شاء الله ايوه كن فيلين لين سوخلا ماي تاري واو فيلين لين ماي موي تاري كون واخنا نين دغ نين واخ ما دغ kon nag fii tey dongo bu jigéen kenn ci yéen laa soxla mu yëkkati loxoom mu wax ci kaw yéen ñi des ngeen déglu ba xam li muy wax noonu la walla du noonu aywa tey soxna Fatimatu lii soxna faatuma lii moom mooy jàng kon waxal ci kaw ñu dégg waaw fu ma teg sama baaraam rekk wala foo gis ñu teg ci benn rond benn serkal coloré ko baat boobu wala araf boobu laa bëgg nga wax ko aywa bii lan la xoo baa bii nag yaa jiim baa mhm. bii nag xaa ميم لام مم. أيوة طيب أيوة سخنا فاطمة كاو بي بينك لان لا تا ه بينك با ه ميم بينك خو زاي ما شاء الله bii nag jiim raa bii nag taa zaay maasha allah mumtaaz soxna Fatima li aywa donga yi góor yi kan mooy jàng ci ci góor ñi tey moom kan moo yëkkati loxoom kon dongo bu ñuy wax Idrissa Jaxate Idrissa Jaxate aywa dégg nga ni soxna Fatima li doon jànge sànq moom de mokkal na macha allah ndax xàmmee na li muy jàng ca waxal ci kaw ma dégg bii lan la saad bii nag xaasaa بيلان لا ح ألف جيم تاء ما شاء الله أها أيوة بيلان لا لام ها با أها بينك ميم را بينك نون تاء أها بينك با ها الف آه باي جمله ده آه بينك خو زاي اها ما شاء الله ممتاز بارك الله فيك ايوا كنك مم ما شاء الله بنت بموكنا نيلا لي موي تخ ما كونتان سو فكه ماغي jàngale ngeen di mokkal rek di xàmmee li ngeen di jàng damay kontaan yàlla na yàlla kontaan ci yéen kon nag jël leen seen kaye ak seen bikk wala seen alliwa seen xalima ak seen daa wala seen ardoise ak seen craie ngeen bindal ma leson bi yépp maanaam bind bi yépp ko defee ngeen boole mën a jàng mën a bind wax naa leen ba tàyyi nag kuy jàng bind dangay ngay bind mbind mu rëy gis ngeen bind mi ni mu leere ni mu rafete fexe leen ba bind mbind mu rafete nii wala bu ko gën a rafet toppandoo rek nga xool araf bu ne niñ ko bindee am na ci suuf amul tomb amna na benn tomb ci kaw ñetti tomb la am mu alif bi nuñ ko bindee araf bu ne nga xool ko toppandoo ko bu baax a baax mu ngoog kon nii ngeen koy bindee beneen bi ci desit gis ngeen ko ngeen bind ko ba mu egg waaw incha allah ngeen indi wan ma waaw képp koo xam ni yaa ci dàq jàng rek dàq cee mokkal dàq cee bind insha allahu taala moom tabaarakallah moom yaay raw sag maas kon mu ngoog yàlla yàlla defal ñu tawfiq defal ñu ak yombal defal ñu ak leeral ci suñ làmmiñ bañ mën a jàng alquran njàngin mu set mu dëppoog ngërmaande suñu boroom subhanahu wa kon mi ngi nii fii lañuy ñuy yem yéen ci bind bi ki ci àndoon ak yéen fii ci baytul quraan seen mbokkum daara sëriñ Mor Sarr subhaanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk